moom moo doon daw ci sens inverse bi ngir wutali rond point gàddaay bi ki nga xam ne nag moo ci ñàkk bakkanam nee nañu mi ngi tudd Momar Cissé dafa jóge woon ci barabu lëgëykaayam doon ñibbi ci këram Kër Masaar ba tey bu ñu sukkandikoo ñi nga xam ne ne fekke nañ bi la ñi nga xam ne nag ñoo ci am ay gaañu gaañu waa sapeur pompier yëpp nañ leen ci benn l'hôpital di fàttali rek ne ne parti bi ci VDN 3 bi dafa lëndëm maanaam amul benn éclairage boo xam ne ne am na fa ba tax na li ñu fay nemmeeku accident bari na lool. amadu euh, Sabar Ba ñu wax ci chiffres yi nga xamante ni euh, joxe nañ ko ñeel Sénégal euh, lim nañ fi lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméeri accident de travail wala boog ay feebar yoo xamante ni dafay dal liggéeykat yi ci seen i bërëbu liggéeyukaay bu ñu sukkandikoo ci sécurité sos sécurité sociale waaye nag bu ko méngaleeg fukki at yi mujj daanaka dafa wàññeeku ngir gën a aar liggéeykat yi nag ci seen bërëbu liggéeyukaay loolaa tax autorités yi soobu ci projet d' intégration ngir saytu kaaraange ak wér gu yaramu liggéeykat yi yi ci seeni entreprise ci noonu lañ doon amal ndaje ca Mbour Ndeye Mati Dieng wàññeeku la ñu gis ci l'accident yi am ci bërëbu liggéeyukaay yeeg feebar yi mu di mbir moo xamante ne nag Marie Diallo daf ko rafetlu moom mooy directrice de la prévention des risques professionnels à la caisse de sécurité sociale. mën naa wax depuis dix ans jóge nañu ci pratiquement ay deux mille cinq cent accident maladie yu ñuy déclaré à la caisse fi mu nekk nii ñu ngi ci moins de mille huit cent. waaye ñu ne l'accident yi ak feebar yi ci biir bërëbu liggéeyukaay yi dañoo bëgg mu dem ba daal di jeex. lu ni mel nag moo waral ba ñu amal benn projet boo xamante ne ci biir école de formation yi muy fa ñuy tàggatee ndaw yi fa la ñuy tàmbalee ngir daal leen ñaax ba bu ñu demee ci entreprise yi ñu xam naka la ñuy def Mamadou Camara Fall mooy secretaire général bu ministère ba ñu dénk wàll formation professionnelle li nga xam ne mébétoon nañ ko depuis 2018 ca table ronde bi ko dooroon buñ ci paree secteur formation professionnelle et technique lii ñuy tuddee sécurité santé au travail nga xam ne li ko tax a jóg mooy sàmm suñu ndaw ñi nekk ci établissement yi di fa jàng métier ak ñi leen di jàngal te nga xam ne bu ñu fa jógee ëllëg si biir ñii dinañ nekk matériel boo xam ne bii bu ñu xamul nuñ koy utiliser mën na indi ngaañal ci ñoom. ci biir ministère bi ñu dénk xëy mi am na fa sax léegi bànqaas boo xamante ne mbir moomee dong ci lay àddu. Mouhamadou Mokhtar lum inspecteur du travail la. ci ministère du travail ñun tam góorgóorlu nañ ba ren incha allah li nga xamante moom mooy question bii dañ ko yëkkati def ko ci li nga xamante moom mooy direction. bile lël nag na mën a dem ci diirub ñetti fan ñu tàmbali ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub octobre. Ndeye Mathi Dieng Mbour coowal suuf ca Bambilor maire ba jël ñaar fukki hectare eh, daal di ko jox benn homme d'affaires loolu nag ndaw yi di ko eh, ñaawlu ba tax ñu doon eh, manifester ñu ne seen toolu mango ya ñu bëgg a yàq daal lañ ñu mënul dégg tax ñuy sàkku ci njiiti réew mi mu wax ci balay làmbaay ñaaw Assane Bey moo yore seen kàddu ñu teewlu kook Abdou Diouf Diagne. parce que y un certain sooy bu sec. kii dit que il a 22 hectares à mbéy 22 hectares yoo xamante ni yow nit ñi dëkk nañ nit ñi dañ ko dëkk 22 hectares yoo xamante ni ay tool a ne suñu jigéen ñii bu ñu xëyee si la ñuy dem witti lingom guddi gi ñoo a jaayi ñii di witta màng ñii di witta ay tomate daanaka boo xoolee dëkk yi tool yi moo leen di dundal zone des Niayes c'est une zone agricole 75 pour cent des légumes yi ni waa Dakar dañ koy dundee zone des Niayes lay jógee mais ñun amuñu usine Bambilor amul benn usine amul benn industrie tey tool yi la nit ñi de bay di dund yow nga bëgg a léegi yow yooyu tool yi ñuy dundee yow da ñëw jaay doole indi sa baay boo xam kenn xamul foo ko jëlee ne da nga koy jël en force léegi boo ko jëlee ñun lan la ñuy dundee si biir 22 hectares yi y' a plus de centaine de maisons téeméeri kër ñu nga fa nit dëkk fa ñu ngi leen di humilier di leen génne di rajaxe sans payer d'impense fay ñu kenn un seul sou impense y' a plus de 100 dem leen ngeen filmer kenn nit koo xam day jaay doole ñun nag on est de simples citoyens on est des lambda amuñu doole moom peut-être il a ses milliards il entre dans les bureaux di corrompre nit ñi pour am li mu bëgg ñun amuñu benn chance dem si moom ak justice parce que bu ñu demee xam nañ dañu garde ku mobiliser plus de mille gendarmes fii si mbéy kër gu ñu sànni fa deux gendarmes di taal ay lacrymogène si biir kër yi kooku boo demee moom justice amoo benn chance pour gagner mooy taxaw fii xeex sur le terrain te billaahi wallaahi taalaay suñu arrêté wul lii bakken man na see tóoru beneen coowal suuf ca commune bu Daara Mbos nekk ci département bu Guinguinéo foofu it ndaw yaa jóg ndax mairie baa jël seen terrain ba ñuy footballé daal di ko xaaj xaaj benn bi mu jox ko ni dañ fa bëgg a tabax benn siège projet seen suuf ñu ne nag loolee duñu ko nangu euh, benn yoon Codé Fall yore seen kàddu euh, ci micro Fatou Mbow mairie de Daara Mbos dafa bëgg a suñu benn terrain terrain boo xam ne dañ ko délibéré woon depuis la commune rurale de Mbos attribué ko à la jeunesse ñu di fa football nawetaan mais aussi mu nekk espace public à notre grande surprise nag bërki démb dañ ñu wax ni ñëw nañ samp borne yi ginnaaw bi nga xam ni délibéré nañ ko ndax lan nee na dañ fay tabax benn structure bu tudd seen suuf leneen la des ci terrain bi ñu dañ koy jox ñoo xam ni ay jegeñaale maire bi la loolu nag ñun ànduñu ci moo tax ñu taxawal benn comité bu tudd comité pour la du terrain publique de Darou Mboss def nañ suñu assemblée générale tënk nañ ko ci benn PV bëggoon a rencontrer maire bi mu bañ déposé nañ ko au niveau du sous-préfet ñi ngi informé jeunesse bi yëpp nag ñi nga xam ni nag yëgaguñ ko am na ci ñoo xam ne ils sont parce que assemblée générale boobu ASC yëpp fa teew wax dëgg yàlla ngir bokk ci ci ci xeex bi loolu nag du am tey du am suba ndax ànduñu ci tey ànduñu ci suba ñoo ngi woo population jeunesse bëpp nag rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp li ñuy jëfandikoo ca terrain boobee ñu taxaw jonn à ce que forfaiture bi du jàll tey du jàll ëllëg ñun nag lépp lu ñu yoon may danañ ko taxaw danañ ci dem ba jusqu'au bout jusqu'au bout danañ informer autorité compétente yëpp fii ba présidence de la république à ce que délibération boobu ñuy def ñu annulé ko ci nu mu gën a gaawee. meeru Daara Mbos ca boppam Fatou Mbow jokkoon ak moom waaye du nee na du ci wax. jàngalekat yi nekk ci université euro Afrique ñoom nag jamono ji nag mer nanu lool ndaxte dañ toog weer yu bari yoo xamante ni jotuñu seen salaire eh, ñuy ñaawlu it anam ya ñuy liggéey ci seen lekkool eh, ci seen université eh, boobule ñoom nag jàngalekat yooyu nekk ci université euro Afrique démb lañ ko xamle ci ndaje ñu sequ nag taskatu xibaar yi wëlbatiku ñaawlu doxali ñu njiit la di directeur ba Cheikh Souleymane Diop seen yore seen kàddu ñu teewlu ko ci. yor école moom école bi mun ñu wax Mohamed Diabay daf ñu yoreel presque un an yi un an et demi de salaire nanguwul ko fay du man sax mënuñu ko fay mais daf ñu ko nanguwul fay parce que euh, mi ngi réglé ay problème ay enseignant euh, élèves yi ñu ngi inscrit enseignement yi dara manqué wu ci mi dox comme il faut mais kenn fayikuwul depuis plus d'un an mu ñu bëgg a ubbiwaat nag année bu bees ñu dajaloo ni ñun mun ñu commencé année bu bees te fayu nun li nu yoreel li nu yoreel lu nu fay nanu fay li nu yoreel ba pare ñu doogay mën a entamé année bu bees pour mën a jàngale moo tax ñu woo ñu woote ñun ñëpp collectif yëpp enseignants yëpp nous sommes plus de vingt école bi yoreel nu presque huit millions ñu bëgg a alerter étudiants yi seeni parents ak ambassades yi parce que école bi amba euh, nationalité yu bëree ngi fi nekk ambassade yëpp lañu bëgg a alerter pour ñu xamal leen seeni doom école yi ñuy jàngee fayuñu seen i fay nu leen ñu bëgg a alerter aussi ambassade Liban parce que waa ji libanais la Liban lay jóge ñëw yóbbu xaalisam demaat tëddaat Liban ñu bëgg a alerter ambassade Liban ñu bëgg a aussi communauté libanaise bi nekk au Sénégal mu xamal ko ni seeni i ñoñ bu nekk ci seeni biir ñu fii Sénégal di def di yàq seen der yoreel Sénégal yi bañ ko fay alerter aussi justice bi procureur PMS police pour wan leen ni li ah, dajale fii du dara lu dul kaas suñuy njiital université ba ca boppam Mohamed Diabaye démb ba tey ñu ngi koy woo waaye téléphone bi daa dëkkee sonné mu bañ a jël. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar opération charme wala boog tournée économique lu neex waaye jàpp waaye Amadou Ba ma ngay wéyal tournéem ci bët gannaar yi réew mi démb ma nga woon ca Ndar. ndar wax na ko luy seen ñax luy seen ñaxtu Ousseynou jóg Amadou Ba ñoom ci diwaan Ndar géej daanaka militant yi nga xamante ni ñoo ko ci APR ñoo ko daal di teeru fii nag mbooloo mu bari ñëwoon fii mu dem visiter liggéey yi nga xamante ni am na ci wàllu assainissement bu Pikine ginnaaw loolu Amadou Ba daje ak ñi nga xamante ni ñooy nappakat yi ci place Faidherbe bu Ndar fii nag ñoom nappakat yi yebbi nañ ko seen i jafe-jafe jëm ci wàllu licence de pêche yi bël bi ak yeneen i jafe-jafe Ousmane ak Yam Dieye ñooy wax seen i port de pêche. rek ba wutal nu yoon ba gaal yi di mën jàll di dem ndax bël bi ni mu mel position bi ni mu mel dafa xaw doy waar. ci kàddoom nag moom Amadou Ba nee na dina ci def ay jéego ngir lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi ñu daal koy mën saafara ci na mu gën a gaaw. gaal yi ngeen di nappe incha allah loolu yëpp luñ ci yokkul wàññi dara. le maire Mansour Faye ak le ministre de la pêche dinañ ñëwaat yàgg. saafara leen loolu. ka nga xam ni moom mooy yilif Mauritanie ba ñu ministre de la pêche def na ko yàggul dana fa delluwaat pour que ñu xool li nga xam ne ñu ngi koy laaj muy 17 euros yi yan pexe la ñuy mën a def sunu biir Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop euh, euh, fekk na moom euh, Amadou Ba bu jógee ndar day dem Rosso ak it Richard Toll foofu askan wa dañoo dëxëñ seen i toog di ko xaar nañu nag bu yegsee dana dégg ba noppam yi di riir Mamadou Diagne. ay doléance ñooy xaar kii nga xam ni mooy premier ministre Amadou Ba si visite bi muy amal si biir département bu Dagana fu si mel na fii sur biir Rosso Sénégal nga xam ni jafe-jafe bi jëm si wàllu assainissement ba tey garamu jafe yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy dund jafe-jafe yu jëm si wàllu assainissement boobu sa Sayer Ndaw nekk leader politique nekk tamit membre coalition Benno Bokk Yaakaar. économique la nekk dina gisal boppam lu xew waalo jafe-jafe yu surtout au niveau de Rosso fi nga xamee ni fan yi passé jafe jànkonte na woon nañu ak ay problème inondation jànkonte woon nañu ak ay jafe-jafe yu bari yi nga xamee ni si mbirum environnement premier ministre bu ñëwee comme tournée économique la nekk dina gis loolu yëpp dinañ waxtaan ak moom aussi wax suñu bëgg-bëgg lu ñu war a pour que suñu population yi gën a dund dund bu ñoom bu dee nag kii di Modou Ngumbo ci di Obama nekk adjoint au maire bu Richard Toll mi ngi xam ne ni désenclavé yi yenn gox yi nekk biir département bu Dagana lu war la waaye tamit taxawal beneen lycée fii nga xam ne mooy Richard Toll la waa la président bàyyi na fi lu ñuy wax la boucle du riz yoon bi war a jógee Richard Toll ndomb Sanjiri Mbaan dem kër Momar Sarr yoon bi war a jógee croisement Ñiic dem kër Momar Sarr yoon bi war a jógee Rosso Sénégal Cagar génne xamante ni dafay jël élèves yu bare lycée moom am war na fi mën am beneen lycée ñi ngi ñaan monsieur Amadou Ba en tant que premier ministre jox instruction son ministre de l'éducation pour que Richard Toll mën abrité projet bi si ndigalu docteur Amadou Mame Diop dontale ñoom ñii lee wax nañu doléance yi lee waaye nag leader ak militant yu Benno Bokk Yaakaar yu Dagana ñu ngi si réglage yu mujj yi ngir kii nga xam ne mooy Amadou Ba amal ab visite bu amul benn jafe-jafe si biir département bi Mamadou Diagne ñëw fii si Richard Toll ngir rajo Futur Média Aïssata Tall Sall mooy ministre de la justice bu bees démb la jot lénge yi bi mu jëlee kàddu nag xamle na ne dana def ab audit ci longue détention yi maanaam ñi ñuy téye lu yàgg bañ leen a atte leneen li mu xibaar moo di ne dana tànn kenn koo xamante ni moom la moom lay dénk euh, kàdduk ministère bi passation de service bi démb la woon Abdourahmane Diallo. ginnaaw buñ ko tàbbee ci ministère de la justice ay Tall Sall ñeenti objectif la daal di fixel boppam. la lu ci njëkk mooy askan bi yëpp xam li ci justice li ni mel sax a tax dinaa tàbb ab porte-parole ci ministère bi ñaareel bi mooy fexe liggéey yi ñu koy def comme ni mu waree ñenn ñi sax jàpp nañ ni vacances judiciaires yi 45 jours dafa bari ñetteel bi mooy fexe ñi nga xam ni dañuy tëdd ci kaso bi kenn du leen atte ñu gaawal seen dossier ba mu mën leen atte ñeenteel bi. mooy loi bi ñu war ko teg bépp nit bi nga xam ni newoo ci yoon cette bu nekkoon ministère de la justice moom di indi ay leeral ci lu jëm ci ñi nga xam ne dañ leen di teg loxo lu yàgg balaa ñu leen di àtte. nit ñi nga xam ne ñu ngi kaso te àttewuñu leen téeméer boo jël ñetti nit lañu soxna yi nga xam ne tamit ñoom ñoo nekk ci kaso yi matuñu sax téeméer boo jël ñetti nit. Euh, prisonnier major Sénégal. Ismaïla Madior Fall di yokk di xamle ni justice su Sénégal justice bu tëddee njaxanaay la. la justice c'est pas bi yemul rek ci justice pénale wala boog ñaari dossiers yi nga xam ne dafay am coow ak xeet gi ni mel luy tax ba nit ñi naan justice bi baaxul suñu justice bokk na ci justice yu ñu gën a jox respect ci àddina bi rawatina ci Afrique. plus respecté en Afrique et dans le monde. ak Aïssata Tall Sall ñaari passation de service la ñu kenn ki dafa jógee justice dem affaire étrangère keneen ki jógee affaire étrangère daal di dem justice. Ismaïla Madior Fall ak Aïssata Tall Sall daanaka dañoo weccoo toogu ci gouvernement bu bees bile ka mu ci ministère de la justice Ismaïla Madior Fall te mu te ñu dénk ko léegi affaire étrangère moom itam yëkkati kàddu nee na dina liggéey ngir ñu gën a naw euh, Sénégal ndaxte Sénégal moom gaa sax naw nañu ko ba noppi euh, ci euh, indi saafara ci crise yi nga xamante ni ñoom ñooy secoué àddina ji ci jamono ji ñu teewlu ko moom Ismaïla Madior Fall. je serai pour l'essentiel dans la sama liggéey du metti ndax li fi njiitu réew mi teg ci loolu laay wéyal waaye tamit li nga xam ni yow tàmbale nga ko noonu lay demee du ñàkk nag mu am li nga xam ne dinaa ko ci yokk ci li nga xam ni fas yi ne naa ko ci yokk mooy Sénégal nekk benn force de proposition buy tax fitna yi nga xam ne mu ngi xew ci àddina bi ak ci réew mi ñu am fi taxawaay bu war a mën a tax loolu yëpp dàq ndax suñu diplomatie may nañu loolu suñu histoire may nañu loolu la donc taxawaay boobu bëgg naa ci xar sama tànk tubéy waaye tamit fexe ba kaddu njiitu réew mi Macky Sall di kàddu bu sell bi nga xam ne moom lay incarné àdduna bi yëpp di ko dégg ndax xam-xamam sell na lu war a mën a tax adduna bi mën koo dégg di jëfe li nga xam ni loolu la bëgg àdduna bi demee cette voix sage Ismaïla Madior Fall di ministre gi ñu dénk bees euh, euh, affaires étrangères assemblée nationale député yi tey lañu fay dajaloo waat ci kanam tuuti bu 10 heures jotee ngir ñu euh, former bureau commission permanente yi demb nag daal dina ñu ratifier li nga xamante ni ñoom ñooy bokk ci commission yi ni ki démb ci ngoon fukk ak ñeenti commission ba mu des bu finance ba nga xamante ni dana am lu toll ci ñeent fukki membre commission comptabilité ak contrôle. amul euh, ñaar fukki membre lay am euh, yeneen euh, fanweeri yeneen commission yi fanweeri membre lay am député yi kon war a delluwaat tey ca assemblée nationale li nga xamante ni moo di moomeelu Senghor mu di euh, ay objets yu mu moomoon Léopold Sédar sengoor te nekk France dañ ko def vente aux enchères ni ki samedi état bu Sénégal euh, ne jël na euh, disposition yi war yëpp ngir daal empêcher njaayum bien yooyu nga xamante ni ki fi newoon njiitu réew mu Sénégal Léopold Sédar Senghor moo ko moo moom ministre de la culture et du patrimoine historique dana dem sax ca Paris ngir bañ lu ne mel ñu teewlu ali Sow kàddu yi mu dénk Salamata Ousmane Diallo. ci mbir mu ñu gis ci presse France mu jëm ci wàllu jaay ay jumtuwaay yoo xam ne suñu njiitu réew bu njëkk muy président Léopold Sédar Senghor moomeel boppam la bu nekkoon këram wala ay jumtuwaayam yu nekk France. ñu waroon def di ko jaay ginnaaw suba ci France ci njaayum moo xam ne dañu ñëw def ci penc ba ne ko bëgg loo ci loo ko loo fay. bi ko président yëgee te la gën a gaaw la joxe ay ndigal jël ay matuwaay président joxe na tegtal yu leer a leer la ci leen ñu ambassadeur depuis suba commissaire priseur bi war a jël loolu def en chair ba ma ngay waxtaan ak moom pour xool pexe yi mu a def ba ñu fomm loolu Sénégal jël ay kéem jël ay matuwaayam ngir moomale boppam loolu delloo ko Sénégal mu bañ a am leneen kaddu Aliou Sow di ministre de la justice yi njaayum euh, vente aux enchères bu ñu jagleel objet yi nga xamante ni Léopold Sédar Senghor moo ko moom nag ni ki ëllëg ci samedi wi lañ ko waajal donte gouvernement bu Sénégal nee na àndu ci loolaa tax sax Aliou Sow mi ngeen dégg sànq nee na dana dem Paris ngir wone ne Sénégal àndul euh, ci loolee Kader loo ñëwoon. Cheikh Tidiane noo def. <laughs> maa sant yàlla bar Ngom. yaakaar naa moom maa ngi yow a tolloo amaguñu lu ñu lu ñu war a mën a def vente aux enchères. waaw yow danaa la jaay vente aux enchères yow laa lay def yow Barthélémy Ngom. <laughs> ayca baax na Cheikh. ayca dañu koy daal door rek wàllu basketball ak lii di ay Ville de Dakar. ci wàllu jigéen ñi ñoom nag euh, bëgg nañu bokk ci équipe yi nga xamante ni ñoo nar a teewal Sénégal ci championnat d'Afrique des clubs bëgg nañu tam tegi loxo ci championnat bi ne nag ngir loolu daal di antu faw rek ñu jàppale leen rawatina ci compétition africaine yi te loolu euh, mënut a sotti fileeg fédération sénégalaise bu basketball jàppalu leen ci yoon googule ñu daal di déglu ma Diaw moom moo di euh, président ay Ville de Dakar gannaaw waxtaan bi nga xamante ni seq na ko ak di benn bànqaas ci groupe Futurs Médias objectif bi ñu am comme ni mu ko yàgg waxee mooy euh, jouer ba pare daal di gagner championnat bi li ci des nag ay opportunités yi nga xamante ne war nañu ko mën a am gagner championnat bi ngir mën a teewal Sénégal ci Afrique waaye nag bu nu mën a gagner yeneen trophée tamit baax na ñun pare nañ si bépp fànn ngir delluwaat teewal Sénégal ci Afrique comme ni ma ko waxee dirigeant yi nga xamante ne ñoo nekk ci fédération bi daaw rek AS Ville de Dakar dugal na lu toll si ñeent fukki ak juróom xaalisu bopp la ñun nag li ñuy ñaan ministre des sports bariwul ab titre de voyage sax xeebuñu ko mën-mën gi mu ngi fi te it expérience bi am nañu ko du ñu dem rek ngir participer waaye daañu def lépp lu ñu mën ngir bokk ci top 4 yi. bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee euh, football ak euh, football biti réew rawatina championnat ci biti réew gannaaw ba ñu amalee li nga xam moo di fenêtre internationale ngir mën a permettre équipe nationale yi mën a jongante danañ daal di kon bokk reprendre ci championnat yi bokk na ci championnat bu France. foofu nag bu ñu nee Racing Club bu lance xel dana dem ci Nampalys Mendy ñoom tey jii ci ngoon ci bu 19h jotee danañ fekk la Havre seen dëkk geneen championnat bi nga xamante ni itam doomu Sénégal dana ca daal di yëngu moo di Saudi Pro League di championnat bu Arabie Saoudite ñu ngi seen dixième euh, journée équipe bu Kalidou Koulibaly di Al Hilal féetee ci place bu njëkk bi euh, ci classement bi ñoom dañ daal di dalal tey jii ci ngoon ci bu 18h jotee club bi di Al dana am itam yeneen jongante gu ci mel ni diggante Al Tawoun ak Al Ittihad eh, bu Karim Benzema Ngolo Kanté Al Fateh Sporting Club moom dana taseek ak ñii di waa Abiba ci bu 18h jotee. Eh, geneen championnat moo di championnat bu eh, Espagne foofu itam dana am ay jongante genn côté sax lay daal doon diggante Osasuna ak Granada ci bu 19h jotee 18 championnat bu Allemagne Borussia Dortmund dana fa taseek ñii di waa de Brême. bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee première édition bu Dakar Sport Summit ñu nar amal fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre ñoo ne seen objectif mooy fexe daal ba lépp li nga xamante ni daal euh, ñu nga cee yëngu war a rawatina ci wàllum esprit entrepreneurial ñoom nag bëgg nañu mu daal di kon bokk ñoom jaarale ko ci li nga xam xamante ne di wàllu tàggat yaram euh, dañ siy daal di déglu Malick Diouf di directeur exécutif bu Prims. di agence bi nga xam te ne moom moo nar a organiser googu la événement ci téléphone Mamadou Omar Ba. liñ ci liñ ci wut mooy ñi créer benn économie parce que xam nañ ne sport koom la donc di woo di woo ñëpp bépp dajale acteur u sport yëpp ñi ñëw euh, bokk si ñu xool naka la ñuy financer sport bi naka la ñuy euh, defaree sport ba nga xam ne du du am benn jalgati ku nekk du ci dugg te ku nekk tamit dinañ xam naka la ci nit di duggee ak naka la ci nit du génne ku ci dugal xaalisam tamit dinañ xam naka la ciy duggee ak naka la ci ak naka la ciy génne parce que sport soo xoolee soo comparé ak li am ci yeneen at ci ci àdduna bi euh, nit ñi dañ ciy dund ñun Sénégal dañuy jiital gagné alors que yeneen dëkk yi ñoom dañ ci dañ ciy dund et que booy xool am na ay jeunes yu bëri ñu ngi dund ci sport wala ci corniche bi à partir de 17 heures ni muy feesee ak ay sportif da xool ne loolu rek attraction touristique la sooy wax économie du sport ñun tuuti nañ trop pour pour pour pour porter loolu moo tax euh, dañ ci woo état di ci woo privé yi nañ ñëw ñu développer suñu économie du sport parce que euh, suñuy xeex chômage je pense que sport moo gën a placé pour xeex chômage waxuñu rek licencié yi ci club yi mais liggéey yu ndaw yi ciy am rek porté porter artisanat day porter industrie day porté même ñuy jaay ndox la la ñoom ñëpp da leen di porter donc yooyu suñ ko xoolee suñ ko xoolee ci cadre boobu rek euh, ñëpp war nañ mën a ñëw accompagner accompagner sport bi. waa kay mi ngi noonu wàllum koom-koom jaarale ko ci sport bi moom la ñoo bëgg kon bokk. waxtaanee ci événement boobu nga xamante ni danañ ko daal di amal lu yàggul dara ci weer novembre fii nii ci Ndakaaru loolu yëpp rek ci yoonal lii di Jeux olympiques de la jeunesse ñu ko amal ci atum 2026 fii nii euh, ci euh, Sénégal tey la ajuma Barthélemy yaakaar naa antenne libre euh, tey la wax sa xalaat bi. waaw gannaaw xibaar yi. mooy mooy penco n'est-ce pas. waaw am naa sama xalaat. après nga ñëw wax. yow nag wala nga tollu fee ca téléphone boo ni sa morom. waaw waaw danañu profité nag daal di def vente aux enchères ba ma doon wax ci yow. Mm. mais yoo xam naa ni moom moom say mbir mënut a ndax kuy njëkk a proposé prix am kenn ku koy levé ndax seero. man de xam naa ne nit ak i noppam nu ñu koy defee vente aux enchères looloo mu jaax <laughs> Cheikh Tidiane Diagne jërëjëf. RFM rajo askan wi. ñu tàbbi ci xibaaru aada yi dalal ci Fama Dione. dalee nag jàmm ñaar fukk ak ñetteelu édition semaine bi njëgleel làkku italien fii ci ndakaaru ñu ngi koy célébré. jaarale ko ci ab exposition œuvre bu artiste bi di Flamina Mantegazza thème bi ñu tànn ren nag mooy italien ak durabilité Sedina Bilal Niang ci ab xumbaay lañu ubbee semaine bi ñu jagleel langue italien fii ci Dakar Serena Cinquegrana mooy directrice su institut culturel italien bu Dakar. cette année la bi ñu nekk li moo di thème bi moo di italien dañuy présenter exposition boo xamante ni artiste bi papier jël liggéey ci ay fan yu bëri bu ko defee nag mu mën a génne euh, loo xamante ni day nduru ak loo xamante ni moom la ñu bu ci gune. semaine bi ñu jagleel langue italienne solo mooy gën a mën a wone njëriñ bi langue bi. am bu ñu sukkandikoo ci Federico Bernardi teewal fi ambassadeuru Italie fii ci Sénégal. c'est une occasion pour. occasion la pour ñu gën a promouvoir euh, langue italienne wane li mu mën a def ci message ak ni koy waxee. vers la société. Omar Ben Khattab Keita nekk njiital kuréel gi yëngatu ci wàllu salaam fii ci Sénégal di rafetlu bile activité. am na solo trop lu tax mu am solo mooy que ni dafa baax parfois ñi nga xam ne nekk ci hip bi wala c'est culture gisee di mel ni li wax récupération objet yi nga xam ne dañ koy faral di sànni si mbedd bi muy journal journaliste yi di bind muy casse affaire yi moom la jël indiwaat ko donc def exposé donc li mu war a jàngal ñi nga xam ne ñooy jeunes yi nekk Sénégal ak euh, la population objet yi dañ leen war a mën a joxaat vie. ci ayu bi yëpp institut culturel italien bu Dakar nar a ay activités yu baree bari ngir gën a mën wone solos langue italienne. l'Afrique célèbre Zulu Mbaye mooy yoo xamante ni ci wàllum aar. 2020 mu nekkoon véritablement cinquante ans yi. mais bi ma ko programmé pour 2020 Covid bi ñëw donc ma dàq ko. véritablement ren sama juróom fukki at ak ñett. 53 ans ci ci nga fas yéene koo célébrer def nag exposition boo xamante ni yaatu na fas yéene ci woo dëkk yu bari. 50 ans yi nga xam da ko fas yéene màggal lan lañ ciy xaar ci loo xam te dina am diggante 27 octobre jàpp 10 novembre. mais rien que de l'art aar rek moo ciy am. Eh, ndax euh, fête la du exposition boo xam ne nit ñi dañ koy def pour promotion artistes yi euh, jaay xëy na mun na ci am mais vraiment loolu taxu ko jóg dañuy feetal dañuy sargal benn nit boo xam ne dafa yàgg ci kànd gi euh, bi ma amee occasion ak organiser ko ma invité fukki réew ak benn mu nekkoon Zulu Mbaye daa ngeen déglu waxtaan wi ni mu gën a yaatoo ëllëg ci samedi gi Zulu Mbaye mooy doon ganu xalam ñi moo nekkoon seen chronique culture dig daje altine ak jàmm jërëjëf Fama Dione Touba Darou Salam Caro Prestige hello partenaire DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeri AAD ñoo leen may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mbéy gi naroon a doon ab doom démb yéenekaay yu bari xëy nañu di ci wax yëral xët mu njëkk Vox Populi mbéy ab dëkk la bu nekk ci commune bu Bambilor coowal suuf moo ko jaxase démb ne dafa am ñaar fukki hectares yi suuf ak ñaar yi ñu fa jox benn waaye bu ñu naan sëriñ son bu sekk loolee moo waral jàppante ba ne dañoo xëy démb gis fay ouvrier yu ñëw di def terrassement ànd ak gendarme yu deskos yi askan wa du ca dal dalante fak alkaati ba ñu bari jële cee gaañu gaañu am na ñu bari ñu ñu fa teg loxo ñaar fukki hectares yi suuf ak ñaar yi ñu fa dagg jox ko moom de affaire bii di sëriñ son bu sekk journal bi nee nañu moom la ndaw yi dëkk ba ne du am ba ñuñu ci dara dee wuute ko sax moo leen gënal toog di seetaan ñuy caxat-caxatee seen suuf si le quotidien bi ne bam tàkk na démb caxat-caxatee nañu mairie ba yàqate ko am na fa ay blessé yu bari am na fa ay arrestation yu bari libération nañu dafa benn privé bu bëgg a lu toll ci ñaar fukki hectares yi suuf ak ñaar ci mbéy ñi ne ñoo suuf si ne passation de service bi woon démb moom maître Aïssata Tall Sall ba mu jëlee lengee ci Ismaïla Madior Fall leeral na fa ñeenti yoon yi mu fas yéene xutti jaar ci ngir doxal justice bi ñu ko dénk source nañu am Aïssata mu fees dell ak énergie moom la ñu gis démb nee na ngir fexe ba lépp di leer ci wàllu justice bi tax na dina tànn kenn def ko porte-parole ministre de la justice ndax doxinu justice ak liggéeyam war a tuta doon kumpa ci askan wi longu détention wu bari di jooy ci réew mi maître Aïssata Tall Sall ministre de la justice bu bees bi nee na dina judiciaire mu defal ko ab audit ci longue détention yi bu ko defee ñuy tëye ci kaso yi te ñu yàgg fa te xamuñu fan la féete mën a xam lan moo leen fa bàyyi ñu bàyyi ko moom maître te dem seeti honorable député Ayib Daffé mooy mandataire bu Ousmane Sonko mi ngi ci xët mu njëkk journal bés bi le jour yéenekaay bi dañu xamal ne ba mu demee démb ca direction générale des élections bëggoon jëlali Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am ba mu demee jotu ca jotu ta sax élection la ñu leen bloqué moom point actu gis na ni ministère de l'intérieur ministre ba di maître Sidiki Kaba mu tëj bunti Ousmane Sonko Ayib Daffé du ñu wax ci xët mu njëkk libération ne dañuy sonn rek waaye Ousmane Sonko dana jot ay fiches parrainage bu jaree ñu fanaan buntu direction générale des élections danañu ko def ni ñu ko def moom Ayib Daffé di dem ñu dëpp ko l'observateur mi ngi ñuy wax li ko waral ubbil yéenekaay bi donte tribunal bu Ziguinchor mu ba dolli ñu ci ne mbir yi préfet bu Ziguinchor moo ci des moo war a saisir ministre de l'intérieur ngir ñu dellawaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi le témoigné nañu cay nguuru Macky Sall gi daal mooy nguur goo xam ne dogalub justice nu mu mën di toll lu mu rëy rëy ba lu mu tuuti tuuti bu leen arrangé wu duñu ko jëfe Walf Quotidien nañu Ousmane Sonko mi ñu bañal fils parrainage am ñi ko def dañu xëttu yoon defuñu li loi bi wax ñu wax ci Sud ko moom ci mbàll gi wóoragul ndax moom Ousmane Sonko dina mën a bokk am déet ci wotey njiital réew mi njiit réewum Sénégal ba woon di Léopold Sédar Senghor bagaasam yi ñu bëgg a jaay ca France bëgg ko def vente aux enchères enquête dina kay xëy na di ko naqarlu ba di ñu wax ne rafetlu ñu ginnaaw Senghor lise ko nañu ndax vente aux enchères ga sax dina am li tax yéenekaay bi nee nañu mooy président Macky Sall àndul ci vente aux enchères gi nee na ministre de la culture u Sénégal ba ca France ñu a lay jar Sénégal jënd prix en chair. Touba Darou Salam Caro Prestige. hello partenaire DSL ak seen marque bi di dëkk Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeyri AAD ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen itam jërë ngeen jëf ci ànd beeg nun xibaar yi fii lañ ci yëm ak yéen Aïssata Tall Sall mooy ki ñu tànn bees dénk ko ministère. gi gi yore wàllum yoon démb nag ci bu muy jot lenge yi ci la xamle ne dana def audit euh, ci longue détention yi maanaam ñi ñuy téye ci kaso gi lu yàgg te ñu leen atte nee na it dana tànn koo xamante ni moom mooy yore kàdduk ministère bi maanaam porte parole opération de charme wala boog tournée économique lu neex waaye jàpp waaye daal Amadou Ba ma ngay wéyal tournéem ci bët gannaari réew mi ca ndar limal nañ ko ay euh, ndar limal nañ ko ay ñaxtoom Rosso ak Richard Toll di ko xaar beneen coowal suuf ca Bambilor ñaar fukki hectares yi yi ba jox benn homme de l'affaire moom moo jur coow ca jamono jooju euh, moom moo jur coow ca foofe ndaw ya fa doon manifester sax gendarme yi teg na leen euh, loxo mu doonoon xibaar yi Barthélémy ngoom ci kaddu gi euh, Kaderlo Abdoul Khadre ci machine bi digital bi may sa mbay ñu ngi leen di ñaanal jàmm mbokk yi te dikk sàkk ci yéen wéy leen di ànd ak programme rajo Futur Média asalaamaaleykum ci kanam tuuti seen émission penco. Actuel.